mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, di ñëw pour présenter leen benn programme boo xam ne jàpp naa ne képp kuy kabloo war na la arranger xam naa ne sax arranger na même ku dul kabloo te nga yor sa liggéey di ko liggéey comme man dama ko développer pour kabloo yi loolu moo waral ma ñëw pour présenter leen ko wax Kablo wax ne nit koo xam ne dafay euh, liggéey ak ay doomu aadama euh, ñii di abone ñeneen ñi weer bu dee ñu war la fay ñii di bàyyi ñii di mu di modifier seen abonnement yooyu yëpp dafa nekk ci biir donc euh, ñun sénégalais nag dañu am habitude lépp lu ñuy def dañ koy jàppar suñu bopp wala yore wala yore suñu karne di dem di bind bon man ma xalaatoon ci lu mat ñeenti at ma ci doon liggéey ba yàlla dogal fii ñu toll nii yàlla dogal lii ma nga xam ne moom laa ci doon liggéey mu yegg ma essayé ko liggéey ci lu mat bi mooy daanaka ñett xaw ma ñeenteelu weer boo xam ne maa ngi ciy liggéey man ci suma jëm bopp ma gis ne nag lii euh, nekk na loo xam ne war naa ko mën a présenter Kablo yëpp képp koo xam ne intéressé na la Ah, ñu jokkoo ñu xool naka la ñuy def pour nga mën a jot ci programme boobu programme bi nag nekkul boo xam ne dañ koy maye gratuitement programme buy jaay la ndax wax aussi dafay leer ci départ bi euh, programme bi pour nga mën ko am aussi pour nga mën ko utiliser il faut nga yor machine ordinateur ak ordinateur bu mu mën a doon il suffit nga mën ci installer li ñuy wax Microsoft Office boo ko installé rek jeex na waaw donc dama bëgg ñu ànd ma won leen li nga xam ne moom laa développé ñu xool mën nañ ko nag modifier kenn ku nekk ak ni nga ko bëggee ak say modification yi nga bëgg ñu defal la ko ci c'est possible man dama ko adopté ak suma bopp mais ça ne veut pas dire que ne li ma arrangé man arrangé na la yow war a arrangé na keneen donc ñu dem ma présenter leen programme bi programme bi moom moo nekk nii fii c'est texte texte bi Excel la gis ngeen ko nii maa ngi koy doog a ubbi une fois nga ubbi ko pour la premier fois dina la defal lii nga xam ne euh, message bi dina la ko bindal nga cliquer ci ak septe jeex na fichier bi soo ko ubbee da nga gis ne accueil lañ fi def données ñu def fi janvier février mars avril mais juin juillet août septembre octobre bi ñu nekk ak novembre euh, octobre novembre décembre donc da nga gis ne fichier yi nii la nii la tegaloo comme fichier wu novembre bi octobre bi moom laa mujje woon a ubbi loolu moo waral mu indi ma fii ci interface bi mais si toutefois ma indi ko ci ma indi ko ci accueil bi ma sauvegarder ko foofu su ma ko tëjee su ma ñëwee ubbiwaat dans dans les normes fii la ma war a indiwaat donc foo ci mujjee nekk rek boo fa boo ko sauvegarder boo génnee boo ñëwaatee loolu moo loolu la lay indiwaat lan laa créer fii mooy euh, remettre à zéro le fichier complet maanaam soo ci liggéey janvier ba décembre day nekk fukki weer ñaar données yi dafay bëri soo yarul machine bu am doole day commencer de ralentir pour mu charger fichier bi mën na dix puisque ça dépend ku yor dix clients comme vingt clients mën na ñàkk dix mais su fekkee ne mille deux mille ba trois mille clients nga bëgg ko def fii su boobaa dana diis donc loolu moo waral ma préparer ne su boobaa da ngay copier année boobu à quelque part su ko defee nga remettre fichier bi à zéro su ko defee boo ko remettre à zéro fichier bi day delluwaat à zéro nga recommencer waat encore donc loolu moom moo waral ma def fi bouton bi bouton bi mooy formulaire de saisie bi moom laa leen bëgg a présenter xam nga bu nekkul loolu soo ñëwee ci Excel li ngay def mooy page Excel nii lay mel da ngay nekk fii di di di di kii di di mu tuddati da ngay nekk fii di bind tur sant nangam nangam noonu ngay def mais man liggéeyewuma ko noonu puisque dama jàpp ne adopté wul ak li nga xamante ne euh, moom laa soxla waaw comme man leneen laa soxla moom moo waral man ma def ko def nii mois yi def ko lépp. après nag ñu dugg ci biir ma mën la euh, ma mën leen won li nga xam ne moom moo nekk si données yi donc soo duggee ba ci biir boo cliquer ci formulaire de saisi bi lii la lay indil dama leen di présenter lépp lii bouton de reset la maanaam bu fekkee ne ay client dañ fee nekk ay bind nekk fii nii yëpp dinaa leen présenter lépp soo bësee bouton bi lépp nii lay melaat dafay weex moom lay jëriñ lii bouton imprimante la maanaam forme gestionnaire bi ku ko yor dans la norme soo ko liggéeyee dëgg-dëgg war nga mën a imprimer say propre facture nga xam ne da nga leen di imprimer ci sa imprimante jox leen say client wala di ko liggéeyee bouton bi buton de supprimer la lépp loo xam ne da nga client boo xam ne danga ko bëgg a supprimer bouton bi moom moo lay permettre pour nga supprimer ko bouton bi bouton modifier la ñoo ngi ci mois de janvier enregistré nga client bi fay na la mois de janvier le 2 la la fay dem nga bu mois de février soo ñëwee pour modifier ko datu client bi rek moom ngay modifier ak somme bi la fay ak bouton paiement bi après dinaa leen ko won nga ñëw fii ci modifier gestionnaire bi jël ko encontre lii yor nga lu mat mille clients yaa ngi leen bëgg yaa ngi bëgg a rechercher benn tour jëlal tour bi nga xam ne moom nga bëgg a recherche moom bouton bii su ma leen wonee fooy def recherche bi bouton bii loolu lay jëriñ yaa ngi bëgg a benn client lii bouton bi pour lool la ok léegi ñu yéeg ci kaw gisoon ngeen fële fii nii ci suuf mois yi gis nga ko nii moom laa def fii boo xoolee mois yi ñoo ne ñoo nekk nii janvier ba mois bii nii waaw boo demee mois de janvier soo defee ni nga chargé defuma ci dara dem ko supprimer lépp lu fa nekkoon donc comme euh, euh, ci mois bi ñu nekk aussi boo ñëwee ba fii boo defee chargé dara nekk gu fi waaw mais soo ñëwee ci mois d'octobre bi gis nga def naa fi lu mat dix-neuf clients yoo xamante ne def naa leen fii waaw soo ñëwee fii ci mois de septembre bi foofu aussi def naa fi dix-neuf clients yooyu moom laa fi bàyyi waaw donc bouton bi pour loolu la fii date la waaw date bi nga aboneel nit ki wala date bi mu la fayee moom ngay def fi prénom et nom turam santam adresse fan la dëkk pour nga mën a xàmmee client bi moo tax ma bàyyi ko mu gudd waaw parce que des fois nga am client boo xam ne fu muy nekk dafay sori lii dama ko def comme ay récepteur su fekkee ne yow réseau bi da nga yor ay récepteur yu bëri ici fii nga jël récepteur bu nekk nga recensé clients yi ci nekk soo demee récepteur 1 da ngay xam ne nombre bi moom moo fa nekk soo demee récepteur 2 da lay indil nombre bu fa nekk donc loolu moo waral lii ma def ko ay ay récepteur ok gis ngeen léegi euh, fii système de recherche bi fichier bi dama ci def ñetti système de recherche pour que walla bokk euh, ñeent fii par exemple kii nga xam ne mooy du Diané dama def soo jëlee turam moom kese nga recherché ko moom kese dafay ñëw su fekkee ne da nga jël MA yi nga xam ne MA yi yëpp waaw dafay ñëw date bi aussi mën nga ci recherche P ou non P aussi mun nga ci recherche mais comme eggaguñ ci loolu damay développer rek pour won leen euh, bouton bu denk donc bouton bii bouton de recherche la fii numéro téléphone fii somme bi nga xam ne moom la client bi di fay fii bu fekkee daf la yoreel P ou non P moom moo nekk nii donc loolu la léegi ba tey ñu avancé nombre total client waaw nombre de clients bu fekkee ne réseau bi dafa yor mille clients boo fi enregistré 1000 clients dafay affiché fii waaw nombre de clients sur ce récepteur maa ngi ci recepteur cinq hmm? su ma demee ci récepteur un nee na ma récepteur un bi de 6 clients ñoo fa nekk waaw total payé sur ce récepteur nee na ma recepteur un bi de 6 clients yi fa nekk yëpp fay nañu effectivement gis ngeen ko ni sompee par ce récepteur nee na ma mille la boo leen calculer lii mille francs la leen di jox moom moo nekk nii total eh, client qui ont payé ce mois-ci nee na ma weer wii ñu nekk ci mois de septembre clients yi ci fee yëpp 19 clients la mu defalaat ma total paiement effectué ce mois si total bi nga xam ne récepteur un deux trois yëpp trente neuf mille la somme bi boo ko boo ko arrondiree mille francs lay doon donc bu ngeen xoolee lii dix neuf clients la soo leen arrondiree li nga xam ne moom moo ci nekk yëpp ah, day nekk trente mille francs donc loolu la léegi euh, client bii nga xam ne euh, fay na ma mu ngi ma fay dinaa mën a xam date bi jour dinaa mën a xam jour bi mois bi année bi dinaa ko xam turam adresse récepteur bu mu bokk système de recherche bi numéro téléphone bu fekkee am na some bi nga xam ne moom la fay ndax yoreel na ma ndax fay na ma wala fayu ma lii il suffit ma xool fii ci formulaire bi dinaa ko xam mais si fi ma def ni aussi dinaa mën a xam ne récepteur 1 client yëpp fay nañ ma puisque moom moo tax mu def leen en vert mais lan mooy am par exemple su ma defee demee ci récepteur 2 mu ne ma client yëpp fay nañ la foofu aussi ci récepteur 2 bi ok recepteur 3 su ma demee ci récepteur 2 nee na ma client yëpp fay nañ ma léegi récepteur 3 nee na ma benn client euh, ñaari client ñoom ñoo fa ne ñaari client yëpp fay nañ ma lan moo am ci récepteur 4 nee na ma ñaari client ñoo fa nekk fay nañ la lan moo am ci récepteur 5 ñaari client ñoo fa am fay nañ la récepteur 6 amul client supposons ma dem ci récepteur 5 ma jël client bii ma modifier ko ma def ko ne moom fayul def naa ko fail ma ñëw fii ma modifier su ma ko modifier modification bi jàll na lan la may bindal fii daf may won que ne carrément non payé mais en même temps mu def ko en rouge waaw gis ngeen léegi au lieu que mu defal ma 19 clients moom moo fayoon ci weer wi wàññi na ci benn nee na 18 la waaw boo leen jëlee aussi somme bi nga xam ne moom la defoon bu njëkk defatu ko waaw fi mu nekk nii trente neuf mille moo fi nekk léegi lan mooy am su ma modifier ma def ko nii gis nga waaw trente neuf mille franc la moom la may bindal puisque fay na léegi su ma modifier ma def ne non payé puisque ci mois bii ñu nekk données lii ma leen di expliquer suñ demee ci mois bii ñu nekk di ngeen ko comprendre waaw puisque dama ko liggéey de telle sorte que mois bu xesee ba passé mënatoo ko modifier man loolu moom moo ma neex kenn ku nekk si yéen moom mooy xool li nga xam ne moom moo ko neex donc lii ci mois de septembre lañ nekk léegi dañuy jàll ci mois d' octobre ñu xool mois d' octobre gis ngeen ne fii zéro moo fi nekk puisque jamono tey jii laa laa ko liggéey tey ñu ngi nekk le 9 11 mois 2020 loolu moo tax machine bi jëlu ko en compte que dama génn mois boobu ma xaar ba beneen mois jot ma doog a commencé di modifier données yi man loolu moom moo ma neex kenn si yéen moom mooy xool su fekkee ne loolu neexu ko moom mooy wax lu ko neex ok waaw euh, lan mais li ma bëgg a fii yëpp mooy bi may def lii dama leen bëggoon won kene euh, soo leen xoolee clients yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci formulaire bi yëpp ñoom ñoo nekk nii clients yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñëpp clients yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp am na ci ñu fay mais am na ci ñu fayul léegi nag dama bëgg a jàll ci mois présent bi nga xam ne moom moo nekk nii ci jamono ji moom laa bëgg a jàll puisque nekkul ne chaque fin du mois rek da ngay dem nga ajouté waat say client di demaat di di di di bindaat déedéet liggéey bii ma leen woon benn yoon nga koy liggéey ci année bi nga recenser sa client yëpp dugal leen ci formulaire bi une fois nga dugal leen ci formulaire bi li ci des yëpp fii nga koy liggéeyee dootoo dugg ci terrain bi xanaa lenn client bu dugg bees nga ajouté ko client bu génn nga supprimer ko mais dootoo nekkaat di recenser waat wala chaque fin du mois nga nekkaat di bindaat. turu kenn ku nekk léegi nan la ñuy def suñu bëggee jàll ci mois bi nga xam ne moom moo nekk euh, mois bi ñu nekk nii nan laay def yéen a ngi gis ñu ngi ci octobre léegi war nañ jàll ci novembre passer au mois suivant bouton boobu nga bës ko mu laaj la ndax souhaitez-vous passer au mois suivant nga ne wii gis nga mu effectuer ko non seulement copier na la client yépp ci mois bi mais def leen def yépp non payé kenn fayu ci parce que par exemple le le le le vingt neuf wala trente nga ko dugal kenn fayagu ci mais gardel na la client bu nekk récepteur bu mu nekk gardel na la client bu nekk date ba mu la fayoon gardel na la client bu nekk turam santam numéro téléphone am données yi ci nekkoon ci moom garde na ko léegi naka ngay def nag pour nga mën a liggéey ci mois bi da ngay ñëw nga dugg fii. nga ñëw formulaire bi mu ne la am nga dix-neuf clients moom nga yor léegi nan ngay def nga dem mu par exemple nga dem euh, récepteur un mu ne la récepteur un bi six clients moom moom nga fi am nga ne ok Khady Diouf mii de fay na ma nga valider ko nga ñëw fii nga dund nga bind par exemple tey la zéro neuf nga def nii su ko defee nga def onze lan mooy am su fekkee ne validé naa ko gis ngeen daf koy jël données yi daf koy jël nee na ma léegi yaa ngi ci bon maa ngi jégalu ndax euh, sama téléphone dafa sonne ma nekkoon ci yeneen pour ma ñaat pour eggale li ma li ma doon expliquer léegi léegi boo leen xoolee ñu ngi ci mois de lan mois de novembre bii ñu nekk euh, li ma leen doon wax aussi modification yi lii la quoi dix-neuf clients yi gis nga ko nii boo xoolee euh, boo defee lii dina la won ne client yëpp kenn feeku ci ku dul benn waaw saa yoo paase ci mois beneen client yëpp dañuy ñëw en rouge noonu lay def léegi ci fii nii boo ñëwee ci récepteur 1 bi di nga gis ne récepteur 1 bi benn client moo ci fayagul loolu la la wax fii dina la won aussi ne ci mois bi benn client moo la ci fayagul supposons léegi man ma dem ci récepteur 2 moo nekk ni kenn fayu ci ma ñëw fii ma modifier dat bi ma def ko 08 11 ma ñëw fii ma def paye si tout fois ma def lool ñaar yi su ma defee modifier léegi daf ma naan ñaari client ñoo la fay ci weer wi mais ci recepteur bii ma nekk benn client moom moo ci fay moom moo nekk nii donc lii la képp koo xam ne nag yàlla dogal na ne nga bëgg ci am ay leeral sama numéro moo nekk 77 euh, 451 wala ma joxe kii bi euh, whatsapp bi moo nekk 451 34 04 77 451 34 04 pour woo ma jot ma nag li ci gën a yomb mooy 76 129 56 56 waaw bépp présentement boo xam ne lii intéressé na la soo ma woowee mën naa la envoyé fichier test boo xam ne test lay doon nga testé ko soo ko testee yow yaay xool soo ma nee test bu cinq jours. maximum foofu la ñu mën a yem mën nañ la ko jox nga tester ko pendant cinq jours wala ñu jox la nga tester ko pendant un jour wala deux jours ba nga gis ne lépp mu ngi fonctionner ah su yàlla dogalee ñu juboo ñu defaral la fichier boo xam ne sa fichier wu bopp lay doon soo ci bëggee apporter ay modification mën nañ ko modifier su fekkee ne aussi ni fichier bi mel aussi arrangé na la su la neexee boo ñëwee ñu defaral la fichier bu mel nii man dama ko defar pour sama bopp sans dépend yéen aussi kenn ku nekk ni nga ko bëggee waaw lii la woon daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam